ngeen jërëjëf mbokk yi ñu suy wax saa su nekk sur la BP Actu ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jaajëfal euh, te indiwaatal leen seen yeneen i xibaaru Actu Net euh, dañ koy daal di ubbee ak li nga xamante ni euh, moom moo di affaire wu centre de redressement bu Cheikh Modou Kara Mbacké yi trois mois ginnaaw ba affaire bi éclaté ba suñu joonu yàlla tey ji tax na yenn ci centre de redressement yi tëjoon nañ leen ràpp ba tax na du jàlloo nekk président départemental des délégués de quartier ci euh, ca diwaanu Géejawaay moom nee na sant nañu yàlla bu baax a baax ndax liñ doon jànkonteel ndax centre de redressement yi ñoom ak suñu borom dong ñoo ko xamoon nelawatuñu woon ba yàndoor lekkatuñu woon ba suux naanatuñu woon ba màndi donc jàpp na ni tëj bi ñu tëj centre de redressement yi moom mooy li gën te wóor waaye ginnaaw ba mu neexee ki nga xamante ni moom moo di Amidou Diallo beneen soxna bu nekk ca diwaanu Cité Air Afrique jàpp na nag ni def nañu erreur bu mag a mag ndax centre de redressement yi mënuñu cee gis ay sikk dong bàyyi li nga xamante ni moom moo di avantage yi ndax gis nañ ni fële na ca cité ba centre ya ba mu fay nekk mënoo fa woon a for benn pepp mbalit léegi nag désolation dong la ñuy dundee cité ba tilim na ñi nga xamante ni ñoo ko doon entretenir nekkatuñ fa nga xamante ni ñoo yoroon centre de redressement yi ñoom loolu la ñu defoon muy métier donc ñenn ñi kontaan nañ ci waaye ñeneen ñi nag jàpp nañ ñi tëj bañ ko tëj moom mooy liggante gën ba tey ci seen xibaaru actunet la ñu daal di deseni ak yéen usine boobee ñu doon woowee 3MD énergie yoon daal di nay teg loxo ki nga xamante ni moom moo di directeur général ba ndax ginnaaw ba ko yoon saytoo saytuwaat ko gis nañ ni amul woon autorisation de construire teg ci tamit amul woon li nga xamante ni moom moo di assurance waaye du moom dong la yoon daal di teg loxo entrepreneur ba jiite woon construction ba daal di nañ koy teg loxo chef de chantier ba tamit jamono ji ñuy wax ak yéen ma ngi ci yoonu gendarmerie. yi te bu ñu fàttalikoo ni usine boobee ba muy euh, daanu keroog ci ab doomu aadama la daanu ba mu daal di ñàkk kanam ak yeneen nit yoo xamante ni ba suñu joonu yàlla tey jii amee nañ ci ay gaañu gaañu yu metti bu ko defee dañuy daal di ñëw ci wàllum santé fële na la ci diwaanu Guinée feebaru euh, Ebola daal di na fay euh, feeñaat euh, dal juróom-ñaari nit ñett ya daal di ci ñàkkee seen bakkan ba tax na nag médecin ñoo ngi alerté ci réew mu Sénégal ngir ñu daal di defaraat li nga xamante ni moom moo di toogi nii ndax buñ ko saytoo Ebola moom moo gën a mortel foofu li nga xamante ni moom moo di jàngoro coronavirus te ci ak fàttali Ebola gën a si woon na Sénégal def fi ay ravage yu baree bari waaye tamit ci réewu Afrique yu ci bare bare bari Ebola ñëwul na fa donc nee nañu ñu daal di ci bàyyi xel bu baax a baax respecté waat li nga xamante ni moom moo di mesure d'hygiène yi bu ko defee ñu daal di ñëw ci kawu Adji Sarr Ousmane Sonko avocat wu Ousmane Sonko yi nag daal di nañ euh, bind ab lettre jébbal ko ki nga xamante ni moom moo di procureur de république bi mu daal di koy euh, saytu na mu gën a gaawee la nga xamante ni moo nekk ci lettre bi nag waxuñu ko waaye li wér te mooy jamono ji euh, procureur bi rek la ñuy daal di déglu wàllum levée wu immunité parlementaire bu Ousmane Sonko Malick Gakou nee na ay député bu kenn voté wi a lever li moo di immunité parlementaire bu Ousmane Sonko waaye démb gis nañ ni euh, kii nii di représentant Pastef bi Birane Souleye Diop euh, ginnaaw ba mu yëkkatee ay kàddu ba pare soxnaam bi xëyoon di liggéey la yoon tegoon loxo avocat nag euh, jàpp na ne lii nii ñuy def lépp ngir mën a am kii nii di Birane Souleye Diop la waaye duñ ko ko may te jabaram dinañ ko libéré ci na mu gën a gaawee ndax gisuñu lenn loo xamante ni rek ab délit buñ koy toppee la bu ñu ñëwee ak yéen ci wàllum sport Paris Saint-Germain war na jàngonte ak waa Barça euh, ci Ligue des champions bi huitième de finale bi waaye les Pisa ak Liverpool ñoom ñax tamit war nañoo jongante euh, tey ji bu vingteur heures jotee mu nekk match boo xamante ni nag Sadio Mané et les Reds war nañ cee mën a prouver waat seen bopp ginnaaw ba ñu jóge euh, ci ay défaites yu tegaloo ci weer bi bu ko defee ñu daal di ñëw ak yéen ci wàllum làmb wàllum làmb nag daal di nay xëy di fësal ci xëtam gu njëkk. 100 jours yi nga xamante ni seen Sène daal dina koy def ci séjour royal bu CNG bi ginnaaw bañ ko fa tegee le 9 novembre 2020 tey jii di le 16 février 2021 100 jours maanaam ñetti weex ak fukki fan ñaar yi nga xamante ni nag moom la defagum mu gën a marqué waa axlu làmb ci jiitu moom moo di prix wu licence yi nga xamante ni dafa toog rek daal di koy wàññi mu nekk licence promoteur licence lutte simple wala sax licence lutte avec frappe ba tey uh, ci wàllum làmb buñ ci daal di desande ak yenn uh, Balla Gaye 2 uh, guy gi ak Siteu daal di leen di fësal ci xët gu njëkk bu nekk ci journalu suñu làmb nee ñu nag ñoom ñett jamono ji fas yéene nañoo boole lu ñu am ak lu ñu amul lu ñu mën ak lu ñu mënul ngir daan seen adversaire yi bu dul dara sax rendre ko hommage ñi nga xamante ni ñoom ñoo leen defaroon démb tey soog a ñëw te fekke wu ñu combat bi ku ci mel ni peex Balla Gaye 1 ba mu fi bàyyi ko yàggul Balla Gaye war a mën a daan adversaire am bi rendre ko hommage waaye bu ñu fàttee mukk ni Bombardier moom tamit dafa ñàkkoon manager am Pape Dia nekk frère am nekk léppam donc moom tamit combat bi jaral na ko lu nekk ba ci caat moom tamit dafa ñàkk booy bambara yàggul dara ci wéet bi ñu génn donc comme ni ngeen ko gisee rek làmb ren dafa nara a takkar naa se loolu ndax mbër yi ku ci nekk takku nga ba mel ni naanaa ngir mën a amal li nga xamante ni combat bi daal ci ciy jëlee ndam waaye Bombardier jamono ji lu ëpp bopp bi nekkul digganteem ak Balla Gaye dongo am na beneen combat MMA le 20 bi bii nii ñuy jublu incha allah combat boobee nag Bombardier mi ngi ci war a tasanteek lom le plus fort au monde nit bi nga xamante ni moom moo gañe juróomi yoon l'épreuve de force suñu gën koo xam ci turu Pudzianowski kooku nag le Bombardier war a dajanteel ci MMA bi ñu ci bari tiit nañu rôle waaye ñenn ñi tamit jox nañu confiance. ki nga xamante ni moom moo di Bombardier ak lu ci mënti am bu ñu fàttee benn yoon euh, que ni euh, waa ji champion la nekk na ko nekkaat ko waaye Bombardier tamit bu ñu fàttee mukk ni moom moo jëloon ñaari couronne yàlla ci làmb ji combat boobee nag le 20 mars la incha allah dañ koy daal di tëjee ak jàngoro yo coronavirus bi fii nii ci réew mu Sénégal tey euh, mardi 16 février ak ginnaaw ba ñu amalee lu toll ci 1555 euh, test 201 ci ñoom ñoo daal di amee jàngoro yo coronavirus bi ak taux de positivité bu toll ci 12 virgule 93 pour cent waaye ci biir 201 euh, yooyu 80 yëpp ay cas contact la ñu amuñu benn cas importé tey ci bés bi 121 yoo xamante ni ci cas communautaire yi presque ci région yëpp nag génn na ay 1 ay 2 ay trois bu mu toll 121 cas euh, communautaire waaye lu tollu ci 230 patients jamono ji seen wér-gu-yaram daal di nañ mucc ayib ba ñu delluwaat seen kër yi 63 cas grave daal di nañ koy am 6 décès ci diggante lënd bi 15 février ak tey ji ci talaata bi bu ñu defee calcul bi depuis le 2 mars ba suñu joonu yàlla ya tey ji Sénégal am na lu toll ci 31 476 personnes yoo xamante ni ñoom ñoo am jàngoro yo coronavirus bi 25. cinq mille huit cent soixante cinq guéris euh, sept cent soixante euh, mille huit cent cinquante personnes sous traitement. ba tax na nag mbokk yi fii la ñuy daal di yem ak yéen ci seen xibaaru Actunet yi jaajëfal leen bu baax a baax jox leen dig daje ba suba ak jàmm incha allah jërë ngeen jëf.